salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di la wax ni nga abonné wu ci seen bi ñëw ak yéen ci li nga xam te ne moo di résultat navétane ci zone 8D bu commune bu Kër Moussé match bi nag deuxième édition la demi-finale la match bi nag joué woon nañ ko arbitre bi tasoon ko léegi taxoon arbitre tasoon ko nag mooy nag dafa demoon ba commencé guddi te temps bi jeexul woon arbitre tasoon ko arbitre nag bi mu defee rapport bi mu ne nag match bi dañ ko joué joué waat deuxième édition mi doon dox diggante ki nga xamante ne moo di ASC Renaissance de Kesoxat ak ASC bi nag ki nga xamante ne moo di ASC Thiambo moom moo ci mujjee dóor ASC Renaissance de Kesoxat deux buts à zéro première bi bi nag ki ko dugal moo di Ousseynou Ciss mu koy dugal ci première mi bi ci li nga xamante ne mooy vingtième minute yi ASC Renaissance ginnaaw deuxième mi-temps bi ba mu tàmbalee nag moom dafa ñëwoon ngir daal di jéem a xool naka lay jéem a dindee bi bi ba wuti leneen wante ASC Thiambo nag dafa mel ni dafa dafa yëg loolu fas yéenewul football nag mu daal di téye bal bi di jéem a xool nu ñuy ak moom ci lañu am benn bi daal di koy dolli match bi nag daal di jeexee ci 2 bi à 0 mbokk yi lii mooy li nga xam ci ni moo ci gënoon a fës ci xibaar ñu ngi leen di wax nga abonné wu jàngeen jëf KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wër te leer ci politique économie santé éducation religion sport ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV KM